ñuy waxtaan mën ngeen bokk euh, ci émission bi n'hésitez surtout pas numéro de téléphone yaa ngi affiché wu euh, ci euh, suufu écran bi 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 xam ngeen ni ci terang yi ñu leen di jox ñu ngi ci ànd ak Ombelico meuble muy chambre à coucher muy salon yi ñuy mayee ci numéro de téléphone yi nga xamee ni tout le temps yéen ngi ci woote ñu ngi ànd aussi ak CSB pour lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu téléphone wala électroménager nga xam ni bu ngeen demee showroom CSB bu ci nekk di ngeen mën a am li ngeen soxla ci wàllu électroménager wala téléphone portable ñu ngi ànd itam ak luxury bijouterie bay Khadim Nia ak euh, euh, Sonatel Orange mi nga xamante ni moo ànd ak groupe Futur Média joxe euh, kër goo xamante ni valeur baa ngi toll ci quarante millions Orange Money joxe enveloppe bu toll ci soixante millions ñu leen koy séddale donc continuer wo continuer leen ci woote yi ci 88 628 22 22 ngaa ko ñu ngi lay nuyu merci d'être là gërëm la ci teewaay bi tey tey ci euh, studio télévision Futur Média fii ci Paris ça fait déjà quelque jours nga nekk fi ci liggéey bu metti mais d'abord dañ lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yeeg internautes yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. jërëjëf Pape maa ngi lay maa lay nuyu di la di la di la Cheikh di wax aussi namoon naa la. trop maa la ah, raw ah, yow naa la lu bëri. maa la raw yow bokk di yi nga xamante ni ñi ngi squatté sur la TFM. Mhm. Sénégal ak fu waaye nekk ci àdduna bi man Ngaaka Blindé maa ngi lay nuyu di leen Cheikh bu baax a baax a baax a baax a nga toj Sénégal léegi waa bitim réew di la xëccoo xam nga sànq maa ngi lay tooñ naan la <laughs> Irlande ak dëkk yu kawe yooyu fi mu ne dañ la soxla mm. mais d'abord voudrais que tu nous parles de collaboration yi nga xamee ni entamé nga ko mu ngi bëgg a yàgg mm. ak Euh, ñu nekkul Sénégal c'est-à-dire lépp France la tàmbalee. Euh, bon liggéey liggéey liggéey la rek avant tout quoi ginnaaw ginnaaw ndimbalu suñu borom liggéey la boo xamante ni dañ ko tàmbalee mën nañu wax géejawaay lañ ko commencé. Mhm. mu commencé tas Dakar dem ba Sénégal yëpp nangu. Mhm. après ku nekk nag du jun kese mais ku nekk ci sénégalais am nga loo ci contribuer. Mhm. ñi nga xamante ni sax dañuy jël son yi rek di ko posté am yeneen réew yoo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel am na liggéey boo xamante ni def nañ xamante ni mooy France mhm. di ci def ay liggéey depuis ak la section d'assaut mhm. Barak Adama pas mal de choses mhm. ambassade bu Irlande am na ko ils ont fait appel à moi bi nga xama li nga xamante ni nag loolu ñu gis ci man ba mu doy leen en terme de créativité en terme de de d'une direction artistique ñu am fi benn résidence artistique ak des artistes irlandais ak des artistes français tey man ñu jël ma étant sénégalais ma bokk ci sa symbolise beaucoup de choses sa mhm. ça prouve beaucoup de choses loolu mhm. mooy wane ni musique sénégalaise mi ngi teg ay jéego mhm. et génération bu nekk am na lu mu liggéey ba indi ko ci benn step après beneen génération bu ñëw rek day fexe jëlee ko foofu yóbbu ko ci beneen niveau et ci tànk yooyu la ñu nekk alors projet bi nu mel euh, bu mel nii eh, yow yaay seul artiste africain sénégalais boo xamee ni tànn nañ la pour nga bokk ci. loolu itam c'était pas évident. waaye c'était pas évident comme je dis mais liggéey kese la quoi. comme ni may waxee rek à chaque fois bu fekkee am nga. possibilité am nga talent am nga ay nit yoo xamante ni ñi ngi sa ginnaaw am nga une organisation carrée dis-toi que fépp fu liggéeyu artiste war a mën a egg ci àdduna bi liggéeyu Ngaaka Blindé mën na fa egg liggéeyu artiste sénégalais bu nekk mën na fa egg mhm. nekkatuñu si monde boo xamante ni on va se dire que bi ci Sénégal rek lay limité wala Afrique lay lay limité wu mhm. dépassé nañ foofu mhm. a des possibilités aujourd'hui depuis presque quatre jours ñi ngi def résidence ak des artistes mais artistes yi ma bokk résidence yëpp à fois bu ñu amee naa ne

parce que euh, euh, résidence artistique yooyu euh, souvent ñoom il le font pour gën a mën a améliorer seen ay technique en terme de chant en terme d'art comment ça se passe naka naka lay demee euh, bon souvent c'est comme ça artiste bu nekk da ngay indi li nga xamante ni loolu nga am mhm. c'est-à-dire ku nekk peut-être euh, dëkk bi nga jógee mhm. da ngay am lu ñu wax sa identité musicale mhm. Ngaaka Blindé bu ñëw am na benn identité musicale boo xamante ni bu ñuy def atelier loolu laay nekk di leen proposer à chaque fois am naa sama façon disons de créer créativité loolu laay fexe di def échange ñoom tamit ñu indi li ñu am mhm. artistes yi nga xamante ni tey jógee nañ Irlande ñëw France artistes yi nga xam ne ñi ngi biir France man ma nekk le seul artiste africain bu jóge Sénégal ñëw mhm. dañuy def atelier yoo xamante ni day nekk benn échange mhm. d'équipe échange yooyu nag si la ñuy fexe ba trouver benn quelque chose de spécial boo xamante ni on va y voir disons une touche sénégalaise <clears throat> excusez-moi gis si benn touche bu Irlande gis disons une touche française loolu yëpp ñu boole ko mu nekk benn cocktail boo xamante ni on va présenter ça le en juin euh, au centre culturel Hurlandais pour am benn affaire boo xamante ni ça sera extraordinaire un cocktail de différents d'artistes de de de de différents pays. lii mooy wane encore ni artistes yi ay ambassadeurs la ñu artistes yi ay diplomates la ñu par exemple euh, ñun yàgg nañu dégg ay collaboration entre artistes africains ak français wala mm-hmm. artistes africains ak américains par mm-hmm. exemple mais artistes africains ak ay irlandais euh, ay dëkk yu rare la par rapport ak ñun sénégalais mm-hmm. mais yow nga collaborer ak ambassadeur wala diplomate. Euh, bu Sénégal weesuwul ñoom par exemple amuñu ambassade Sénégal. par exemple tout mais yéen toujours yéen a ngi xool nan ngeen di lëkkaloowee entre Afrique. ak mm. yeneen dëkk yi. Mm. parce que souvent tu pars dans certains pays. Mm. boo leen nee Sénégal xamuñu fii Sénégal. donc tour artiste lañ lay génneel. Youssou Ndour lañ lay génneel ou un artiste donc ça veut dire que art dafay jaay dëkk. ouais c'est c'est c'est c'est évident parce que chaque chose aussi a a un début. Mm-hmm. tey eh, culture art dafa nekk loo xamante ni dafay boole ay doomu aadama. Mm-hmm. dafay boole ay réew. dafay mm-hmm. boole ay communauté. parce que loolu mooy loolu mooy culture. culture dafa nekk loo xamante ni en fait dafay boole nit ñi ñuy def échange à chaque fois di xool nan la ñuy mën a def pour am un monde meilleur. et sur ce tey da ngay gis ni bi ñuy def tey en prise de contact bi y avait euh, l'ambassadeur euh, du Sénégal de la France. boobu euh, mi ngi fa mi ngi woon assister si. ci ci bi oh, et tey sooy xool collaboration bi am li mhm. ko gën sooke bokk na ci nan la Irlande war a def pour am ambassade biir biir Sénégal ah. et loolu c'est important ah. bu ñu nee nag lan la Irlande war a def pour ambassade am biir Sénégal uh-huh. on s'est dit que il faut que benn Sénégalais bokk si mhm. pourquoi ils n'ont pas dit benn disons footballeur mënoon na nekk mhm, benn disons euh, comédien mënoon nekk nu yëpp c'est bien possible mais bu ñu dem ba am choix ne dañu bëgg mu nekk disons quelque chose de hip pensé à moi. Mhm. loolu ça prouve quelque chose et c'est énorme. Mhm. bi ma ñëwee aussi gis naa accueil bi nga xamante ni def nañ ko. Mhm. et même l'ambassadeur disons euh, de la République d'Irlande en France. mi ngi woon ci euh, disons bi ñu def. nga gis ni que li c'est pas un petit truc. c'est un c'est une affaire très costaud. et incha allah rabi bu ñu jugee Irlande aussi dañu war a jël le même projet. indi ko Sénégal. après qu'est-ce qui va se passer Sénégal mooy bénéficier wu. parce que y aura plein de choses yoo xamante ni se et disons euh, toute la culture dans sa globalité dañ ciy mhm. bénéficier wu. et loolu moo important et puis jeune Sénégal yëpp a bénéficier baax a baax baax leer na ma ni su souci toujours mooy euh, jaay sa drapeau dëkk jaay sa musique c'est vrai mais surtout ubbil buntu yi. xale yi nekk Sénégal bu baax a baax a baax a baax. parce que aujourd'hui quand tu vas Ngaaka Blindé et pas mal d'autres artistes de notre génération y a pas mal de boy yoo xamante ni tey. dañu bëgg a mel ni ñun. Mhm. ñun avant ñu siy jot. Pape mhm. amoon na ay grands yu fi nekkoon. Ah, ah. c'était pas facile. Mhm. ñoom liggéey nañ ko liggéey ko liggéey ko ba ñun ñu jot ci. ñu ciy jot amuñu problème suñu musique daw télé. amuñu problème feesalay stade. amuñu problème benn problème li ñu lenn rek moo ñu dese. nan la ñu war a def tey ci li ñu yor pour yóbbu ko sur le plan international. ba booy génération future yi bu ñu accès foofu lañ koy jëlee yóbbuwaat ko ci beneen niveau et après c'est le Sénégal qui va y gagner. et qu'est-ce boo ñëwee dëkk bu mel ni France ma gis ni média wu rap yëpp dañ lay xëccoo. Mm-hmm. ay tv mm-hmm. euh, pour ne citer que ñoom y' a d' autres yoo xamante dañuy bëgg euh, invité la ci seen ay émissions qu' ce que ça te fait tey euh, ci koo xamante ni géejawaay la jógee. Mm-hmm. c' était pas évident. xeex bi metti yombul woon pour nga am ascension sax biir Sénégal. mais tey nga dem ba dëkk yu mag yi foo ci dem rek dafay mel ni foofu nga bokk. nga dëgg la dëgg la ah bon c' est motivant. c' xam ne daf lay motiver. et ça va te nga gën a gëm li ngay def. parce que ni may waxee nii. Dia TV5 bi nga xam ne ñu ngi ñuy xaar bu ñu jugee foofu foofu la ñu war a dem. Mhm. ci atelier bi. Mhm. on est presque on est en retard déjà. Ah, toog ah, di ñu xaar. ma la parce qu'ils ont besoin soxla nañ. am ah. suñu avis soxla nañ am suñu appréciation. Mhm. par rapport ak investissement bi nga xamante ni def nañ ko si projet bi. Mhm. te suba yaa France 24 ginnaaw suba yaa mhm. koy def. donc loolu mooy wane ni que musique sénégalaise wala li Sénégal am na quelque chose de de de c'est bu précieux. bu balaa nga koy xam. carrément nga génn ñu boole la ak yeneen artistes yeneen dëkk. ngeen sa saafonte si nga xam importance bi nga xamante ni am nga ko poids bi nga xamante ni am nga ko ci domaine bi ngay œuvrer mhm. et si domaine yëpp la mhm. donc du coup loolu mooy li gën yokk jom artiste loolu mhm. mooy lu tax artiste sénégalais man bi ma jógee Guédiawaye comme tu dis dañ doon am problème bu pas susi comprendre nga <laughs> tey fii ni Paris dañ may fay pour mu dugg si boîte yi tu commences yooyu donc loolu ça prouve beaucoup de choses non mais et il faut que ma woon téléspectateurs yi affiche bi <laughs> tey boo demee euh, dëkk bu mel ni Irlande c'est-à-dire ci mbedd yi wala nga toog gis photo Ngaaka Blindé bu ngand ñu ne le ngaaka mooy jógee géejawaay ñëw fii loolu c'était pas c'était pas évident. ngaaka mais mais gëm-gëm rek quoi lépp loo gis ci àdduna dafa am début da koy gëm xam aussi li nga bëgg def lu ci war. Uh-huh. lépp lu ci yàlla di may doomu aadama. mën nga ko ci am quoi. Uh-huh. lool kese la na domaine bu nit mën ci nekk. moo xam uh-huh. hip hop musique genre euh, euh, football li domaine bu mën ci nekk. gëm ko mm. soo ko gëmee fépp fu nit di egg. Mm. lépp lu ci yàlla mën a may doomu aadama rek. Mm-hmm. doomu Sénégal war na ko mën a am. donc rendez

Euh, Ngaaka Blindé centre culturel irlandais euh, Pape Samba defe naa da nga may fàttal foofu ak ben euh, j'allais dire ak benn Irlande mais ak benn Ngaaka Blindé comme